li ñu sonaloon nag mooy dañoo am sous-préfet boo xam ne bi ñu ko faleek léegi Médina lay bañ a dégg moom lay bañ a gis boobu ba léegi lépp lu ñu teg rek mu yàq ko lu mu jéem koo teg gi dem na bay complot ak ay nit parce que maa ngi vidéo bu dul amul na porte plainte ma génne vidéo bi ma génne audio bi audio bi mu ngi ñun kii wax ni sous-préfet moo ñu sant ñu def pétition pour bloquer Bamba mu bañ a dem bi yoon du am dara waaye na xam ni jaam ak pexeem yàlla ak dogalam Médina ay mag dañ koo ñaanal day barkeel ba faaw. jamono yu ñu wutee rek dinañ am bu neexee yàlla surtout ay xol yu rafete ko gi moom nag dafa xamul moo tax mu dugg ci loolu wante ñun ku ñuy tooñ gudd nga ñuy tooñ daw waaye bëccëg boo yemee si ñun yaay pëccët daw Macky Sall nag ma koy gërëm ndax àtte na soxlaatuñu conseil municipal bureau bi bu délibéré jox ko ko deux jours la pour valider ko te kat loolu état bi tamit ndimbal gën ñu dimbali parce que ci masque yeeg yooyu Marème Faye Sall am na lu ñu ci jàppale ma ko ciy gërëm Macky Sall aussi ndimbal gi mu jox commune aussi sant nañ ko yàlla bu baax a baax bu ñëwee dina gën a soulager yenn population yi virement de crédit cent dix millions bi ñu def tamit ndegam def nañu lii tey te makkee ngi def semaine prochaine loolu dina tax ñu mën koo diviser ci ñetti yeneen weer ndax feebar bi bu naree continuer ñun ñu gën a loof te boobaa weer yi ñëw day métti te korité ngi ci tëbaskee ngi ci moo tax dinañ ko diviser par ñett weer wu jot rek ñu soulager yenn famille yi nga xam ni tëju baax na waaye am loo tëju tamit day gën. lay wax conseil kër da ko teree feeñ.